أدخل المصلح في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي bokki jullit yi bokki Touba ak li ñoo ngi fii tey ci jumaay Touba di grande mosquée de Touba ak euh, ñi nga xam ni ñoom la sëñ bi teg ci seen loxo jumaa ji ak morgue bi muy daayira bu ñu xam bu ñu taamu bu mag bu bokk ci daayira yi gën a rëy ci dëkk bi ñu koy Muxaddamatul Xidma ci euh, nekk ak Abdou Lahad Bousso ak euh, ñi ci topp ñu ngi fi it ak euh, ki nga xam ne moo jiite faj mi ci dëkk bi di docteur Dieng ak ki xam ne moo yore service d'hygiène loolu nag bu ngeen ko déggee ci ndigal li nga xam ni Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ko joxe ci lépp loo xam ne ni xew na ci réew mi wala bitim réew wala mu xew ci askan wi rek mu war cee wax wala mu jëf ci moom mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride ñu yaakaar ko tey ak ëllëg di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool jëf na ci xew-xew bii ndax yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko waaye wax na ci it te mooy nañ topp ndigal yii tey wattandiku loole moom mooy wàccuwaayam loole it kenn ku ne xam na ni yeneen ndigal jóge na ci kilifa ak réew mi di président république ngir ñu wattandiku daje bi tey fas ne set bu ñu waxee nag Moukhaddamatoul Khidma wax euh, service d'hygiène ñoom ñoo yore ak set ak ni nit ki war a def ba set ci biir dëkk bi soxna maam xari mi nga xam ni moom sët ci sëriñ bi di doom ci sëriñ Muntaxa moo indi woon moom it participation ci jëfe gum bëgg a jëfe ndigalul sëriñ Touba di ko roy ci magam jii di Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbacke wëlëru euh, deux millions et quelques yoo xam ne jënd na ko ci Madar jënd ko ci eau de javel jënd ko ci gel bi ñuy raxasoo euh, ngir jàppale ko ñi nga xam ne ñoo yore faj mi muy hôpital bi ak ñi nga xam ne ñoo yore service d'hygiène ak ñi nga xam ne ñoo yore Moukhaddamatoul Khidma lenn li war a jëm ci barabu sëriñ Touba bi lenn li war a jëm ci biir jumaa ji ak li ko wër ndax ñiy julli si julli mbooloo ak lenn li ñu ko yóbbu ci morgo ba loole nag di taxawaay boo xam ne nii ku xam Serigne Mountakha mi waajuram xam ni bu ko defee nag mooy dëkkal nañ kër gi ki ko tabaxoon ndax Serigne Mountakha Serigne Serigne Mouhamadou Mourtala nekkee wu foon lu dul liggéeyal diine ba ni mu wujjee yàlla saa borom bi tabaraka wa taala kon soxna si ñu ngi koy sant bu baax a baax ci li nga xam ni moom la jëfat yi te loolu nag daana ko jëf waxtu wu nekk koo xam ko nekk xam ni lépp lu mos a xew muy safinatul amaan loxoo a nga fa muy muxaddamatul ma loxoo nga ma fa lépp loo xam ne ni sëñ bi woote na ko ci dëkk bi it du jàppe boppam jigéen rek waaye day jëf day jëf waaye day wax te loolee nag moo yore àdduna mooy kuy jëf nay jëf lu baax kuy wax nay wax lu baax ñu ngi sant mbokk yi fi yëpp di gërëm mbokk yi fi yëpp wasalaamaaleykum wa wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ maam sëriñ Afia ñu ngi lay delloo ab nuyoo bu baax di la delloo ab ziyaara di nuyu ak a ziyaara mbokk yu baax yi nga àndal euh, dale ko ci sëriñ Mouhamadul Fadel Ndiaye ak kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal yëpp jóge ci soxna maam xari di am mbégte itam di leen dalalaat ci barab bu tedd bi euh, di wax ne itam soxna si ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci dégg gi nga xam ne dégg na ko euh, muxaddamatul ma ci li jëf ji nga xam ne ñi ngi koy jëf ngir euh, fagaroo ko ci tawat ji nga xam ne moo am muxaddamatul ma bi nga xamee ne mi ngi dégg tawat ji ca bitim réew la tàmbali woon moom dajale ay membre am di waxtaan ak ñoom ci ni nga xam ne noonu lañ ko doon dégg ci bitim réew ci waay ci faggandiku gi ak moytandiku gi bi mu egsee itam noonu lañu leen dajale waat waxtaan ak ñoom moo xam ñu nekk ci biir jumaa ji moo xam ñu nekk ci armeel yi ngir ñu mën a nekk ay relais ci fa ñu jógee di jotliwaat xabaar yi di ko di sensibiliser nit ñi ci cet gi ni nga ko waxee léegi te cet di loo xam ne lislaam daf ko santaane bi mu dikkee ba nga xam ne dégg nañ ko ci biir dëkk bi itam ñu jël ci seeni moyens ak li muy néew néew jënd ay sel jënd ay eau de javel jënd yi nga xam ne moom la ñu war a jënd la ca seen doole tollool ci jamono jooju Euh, gis ngeen ko it ñëpp ci àjjuma ji nga xam ne moo weesu euh, teg ko ci bunti jumaa ji armeel ya ak euh, morgue bi yooyu yëpp waaye nag lancé woon appel ci képp koo xamante ne bii nit ku jëf te yàlla tax la ñu xam ne barab bi barabu dajawukaay la boo xam ne mbooloo daf fi daje waxtu ne def nañu li ñu man waaye nag niñ ko baaxoo waxee barab bi lépp ñëpp du leen ni kenn lépp ñëpp lu ne ku ngi ci kon kenn ku nekk war na cee mën a jàpp loolu nag ñu euh, mel na ni ñu ngi koy dégg ndax barki démb ci gaaw bi euh, commune bu Touba andi na fi dara tey jii soxna maam Xari Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Mourtada andi na fi lii nga jàkkaar lool euh, te di ko ci joxe kon mel na ne ñoom ñi ngi dégg woote bi nga xam ne Moukhaddamatoul Khidma woote woon na ko ngir jàppalanteeg nit ñi mbir mi nag dafa doon loo xam ne ni ñu koy waxee wax nañ ko waxati ko waxati ko biir la mu bàyyi ko ci sunu borom tabaraka wa taala di am nattu mu jëme ko ci nit ñi nit ñëpp euh, nattu nag su ñëwee nit ñi lay la ci gën a gaaw mooy ñaar benn bi mooy dellu ci yàlla subhanahu wa taala tuubal ko euh, jéggalu ko te ñaan ko mu musal la waaye nag ñu ñu te ci suñu biir ñun itam ndax tooñaa ngay bari na lool ci suñu diggante te yàlla nag wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa kay jëf leneen yow mi toog jàpp ne bokkoo ci rek bul fàtte ne wolof day wax ne ñax gu wow dana lakaale gu tooy mën naa am tooñ yu metti yi nga xam ne ñu ngi koy tooñ suñu borom tabaraka wa taala guddeeg bëccëg suba ngoon moo tax suñu borom andi bi kon nag nañ jàllu ci moom tuubal ko te balantoy àq ñun ci seen biir waaye nag li ko sëriñ bi waxee itam ñu tënku ci fagaru fagaru mooy ndigal yi nga xam ne waa kër docteur joxe nañ ko ñoom ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci euh, euh, tawat ak ni muy duggee ci nit ak niñ koy faje te koomu mu dal itam foofu lañ koy yóbbu kon bala mu lay dal lim la wax ne boo ko defee yàlla mën na la caa musal loolu kenn ku nekk war na ciy góorgóorlu kon ñi ngi soññi bokki jullit yëpp di soññi bokki taalibe yëpp ñu gën a farlu te tënku ci ndénkaan yi nga xam ne kër docteur ñi ngi koy joxe Eh, di soññ itam mboolem mbokki taalibe bi yëpp waaye di delloo nag di cant soxna si bu baax a baax a baax a baax ndax eh, moom day wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na lool ci barab bii waxtu wu ne eh, loxoom mi ngi fiy ñëw ci lu mel ni koor gi ndogo yi ñuy def dina fi ñëw ànd ak ay xaritam di fi taxaw taxawaay bu rafet tey jii itam bi lii amee ñëwaat na fi taxaw taxawaay bu rafet kon sëriñ maam sëriñ sëriñ Fallou na ngeen ñu jottali soxna si suñuy cant bu baax te xam ne liggéey bii muy def maamam gis na ko te am nañ yaakaar ci ne bu baax ci ne fa fu ne lañ mën a yaakaar fay ak Sëriñ Tuubaa waaye fii moom dañ fay am yàqin ci ne ku fi jëf ku nekk Sëriñ Tuubaa fay la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw jël moom waxoon nañ ko waxaat nañ ko euh, jumaa neexu la tere mbooloo neexu la tere mbooloo euh, ba tax na euh, li nga man rek mooy fag faggu ay pagguteef yoo xam ne dana woyefal dana woyefal jàngoro ji tasaaroo gi nga xam ne moom lay tasaaroo loolu lii ñuy def nii tey jii ci la bokk xam nga ne eh, eau de javel gi fi su ngeen teeloon nu ñëw tuuti da ngeen fekk ñi nga xam ne ñi ngi doon raxas ci subaak léegi eau de javel bi dañ koy dañ ko gën a renforcer ci barab bi bu ñu xëyee di waaye day gën a bari léegi lañu wàcc xëy ne da ngeen a xaw naa ci tuuti kon da ngeen leen fekk euh, muy jëmmi barab bi ci boppam niñ koy setale waaye jëmm ñi fi ñëw itam ñu di leen jox sel yi nga xam ne moom la ñuy euh, raxasoo ngir gën a moytu wa jokk jalaate ci wàllu jàngoro ji bu baax a baax. ni ñuy def ajjuma rek ni ñuy def ajjuma rek noonu la ñuy def ci bés yooyu xam nga mbooloo moom mbooloo la rek. bu mbooloo di daje bu mbooloo di daje moom di xumb mbooloo muy dajale di xumb ni ñuy defee ci àjjuma ji rek noonu la ñuy defee ci euh, bés boobu itam bu accès bu fekkee mbooloo mu bari ñi ngi fi fas nañu yéene def ci suñu kemt laayil kàttan dal ba luñ ci mën a tasaare danañ ko tasaare incha allahu loolu nag moom kàddu sëñ bi la moom du suñu kàddu waaw asalaamaaleykum mbooloo mi man maa ngi wax ci turu waa Service d'hygiène ci ndigalu capitaine euh, Kayta mi ma yebool pour ma ñëw fii waaw don bi soxna maam Xarim Mbàkke def jox ko service d'hygiène pour mu ñëw jël si ko mu nekk euh, ñaari keesu alcogel cinquante kilogrammes chlore granulé ak cinq kilogramme dioxyde de chlore donc euh, suñu kàddu moom du gudd xanaa di sant soxna si di ko gërëm rek waaw ci geste bi mu def jëmale ko ci service bi te xam ne actuellement ni lii rek lañ soxla pour mën a feebar bi ñu wax ci dëkk bi ñu mën koo fekk parce que prévention rek mooy euh, maanaam meilleure méthode bi nga xamante ne moo fi nekk te yu mel ni bu amee rek dañ koy sant di ko gërëm te di ñaan yàlla it mu yokk parce que am na yéen moom tamit dool waat si Ruuj ci wàllu wàllu produit donc kàddu yi du mën a sori sant la ak gërëm rek te di ñaan yàlla yàlla taxaw ñu jàppale nañ ci feebar bi incha allahu rabbi jërëjëf wal tudxilil musliha fi yadi wa داري وثبته بالهادي الوفي